li tax mu doon taalibe kenn xamu ko. Hmm. damaa bëgg nga laaj laalal ma si taalibe Baye Niass nan la war a mel. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyuwaat mboolem àdduna bi waaye di la ndokkeel bu baax di ndokkeel Seydi Akis moom itamit ci tudd yàlla bi moom ñim àndal mm-hmm. ni ko waxee neex na trop woy nañ woy yi fañ ko woy war a woyee mm-hmm. ndaxte woy moom bu fekkee bakkan na koy def soo ko déggee rek di ko xam mm-hmm. mais bu fekkee kii woy day tibbee woy yi ci xolam day paase dégg yi nopp yi day yegg ci xol yi moo tax ñu ngi koy ndokkeel bu baax di la ndokkeel mm-hmm. di ndokkeel mboolem ñuy seetaan laaj nga ma laaj boo xam ne nag duma ci mën a tontu man mm-hmm. ndaxte mbir mu nekk dafa am borom te borom moo ci war a tontu olof yi dañuy wax ne ku lakk daay gën caay fay man su ma la waxee kan mooy taalibe Cheikh Ibrahim su ma la waxee kan mooy taalibe Baye su boobaa damay tooñ taalibe Baye yi waaye su Baye ña su waxee kan mooy taalu beem su boobaa képp ku topp ci moom war ngaa xam ne lii ki nga topp moo ko wax. xam nga Baye dafa woote faydu bi wax ne man araada an maa ma'i fi alihi képp koo xam ne bëgg nga ànd ak man ci xaal bi may dund fal yusluk tariq yi jëlal sama yoon bi fi aqwaali wal afhaali ngay def li may def di wax li may wax loolu moo waral ba képp ku nekk taalibe baay kuñ bëgg wax na yow taalibe baay nga wala doo taalibe baay ñun duñ la ko wax bàyyi la koy wax mm-hmm. bàyyi ne képp koo xam ne maanaam sopp nga sama yoon bi bëgg ànd ak man jëlal sama yoon waaye na ngay wax li may wax di jëf la may jëf Baye nag lim doon wax xam-xam la waaye lim doon jëf lépp njub la Baye ne bimti zaalil awaamiri wàcc naa bin nawaahiri soo ànd man toppal ndigal yi bàyyil tere yi mhm. fi zahiri wal baatini mhm. ci lu feeñ ak ci lu nëbb kon képp kuy taale Baye war ngaa topp ndigal yi mhm. ci jëf lu feeñ ak ci lu nëbbu lépp nga ci teet lan la ci yàlla digle kooku mooy Cheikh al kon ñun bu fekkee da nga ñu laaj kan mooy taaliba Cheikh Ibrahim liñ la mën a wax rek mooy taaliba Baay du am du dul jaam nekk julit koo xam ne nekkoo julit mënoo nekk taaliba Cheikh Ibrahim waaye boo nekkee julit ba pare faaw nga nekk Tijaan jël tarixa Cheikh na nga door ñëw nekk taaliba Cheikh Ibrahim boo jëlee tarixa ba pare nag ci la la Baay soxla pour lan mu tarbiya la yóbbu la ci yàlla Baay bépp taalubeem képp koo dégg ne taaliba Cheikh Ibrahima la suy dëgg ci moom mooy xëtt na kiiraay yi ba dem ci yàlla kooku mooy taalibeem lu tax mooy bàyyi dafa am lu mu woote ba ñu ci ko ci xam nga nit koo nit ku ne sañ naa woote waaye day fekk ne buñ la woo buñ la wuyu ci li nga woote nga mën a li nga woote ba jàllale ko ba adduna yëpp topp la topp la ci képp koo xam ne ànd naa yow nga def loolu ci moom mm-hmm. bàyyi nag li mu woote mooy tarbiya jaami yàlla yi xamal leen yàlla moo tax waxoon na ci benn waxam ne isnaani laysa minni wala min tariqin fi seyin ñaar bokkuñ ci man ñu ne ko lan ñan la mu ne bokkuñoo man sax yoon kon ak mu ne majj suubun lam yos yasluk wa zaliku lam yujsab maj suub boo xam ne suub waatul mooy kuñ ne yegg na ci yàlla ba pare te suub waatul yoonu ñaareel baa ñes ne kooku bokku ci man mhm. wa zaliku ak zalik bi nga xam ne lam yujsab moom amul jaf bu ci yàlla ñaar ñii baa ñes ne bokku ci man saalik nag mooy koo xam ne bëgg naa dem ci àlla waaye tegeegut ci yoon pour dem ci yàlla dégg na ñuy wax ne tarbiya xam yàlla bàyyi ñes moo yóbbu jàng ci àlla loolu neex na ko rek mu bubboo ne moom taalibe bàyyi la di ko wax ci làmmañam waaye jëlagul askar tarbiya yi Cheikh Ibrahima yi pour tarbiya dem ci àlla bàyyi na ne kooku bokkagul ci man saalik bi mooy ki tarbiya fannaaw ba dana dara amul lu yàlla bàyyi ñes ne bu yemee foofu bokkul ci man lu kan mooy bokk ci yow mu ne in baqi ala haalihima ñoom ñaar ñooñu buñ desee ci seen xaal boobu mooy kine ne la te te te suubuugut mooy amagul jas bu ak ki ne taalibe la te am jas bu yem ci buñ desee seen xaal boobu ñoom ñaar wa waqafa ala maa ñu taxawal seen dox ci yàlla baa ñes nee ne ñaar ñu bokk ci man kon kan moo bokk ci moom mooy ki nga xam ne ba nekk na xaam jógee fa ñëw tarbiya am jas bu bu wér ci yàlla def fanaaw ba mu jeex waaye yemut ci fanaaw mu am baqaaw def sulóog dox pour jëm ci yàlla kii mooy taalubeem benn waaye mos naa ñëw rek laaj ko na ko yow maqaasid yi dégg nañ ne Cheikh Tidiane daaw ko jox jigéen te yaa ngi koy jox jigéen ñi mooy maqsad yi ñu wirda nii mhm. bàñees na ko amal maqaasidu fa xassu xaarifin maa kaana majsuubin bi saakal xaarif maqsad yi ñu wirda cëru aarif la du pour macco waaye na ko kuy aarif mu ko aarif mooy balmal baqaawu baxdal fanaayi mooy ki des gannaaw bu mu amee fanaaw mu ca wa salaka mu suubu nax ju rusulul xaqi yoonu yonent tëb dëgg bi wa nafsal malak mu dem ba moom bakkan bi bàyyi mu ne xaasaa huwa rajulun kooku mooy góor un san aw sakaran bu dee góor góor la bu dee jigéen nit góor la kooku mooy taalibi Baay taalibi Cheikh Ibrahima mooy ki dagg mboolem kiiraay yi fannaaw dem ci yàlla ba pare waaye mu am baqaaw ci yàlla bu leer ba nga xam ne lépp yàlla seede ne ko kooku mooy taalibi Cheikh Ibrahima feneen wax na ne wamaa qul wamaa qultum min an muridiya wihaa un mumtali un min asaari hada salaasa yéen da ngeen wax ne sama taalibe mooy ndab lu fees teb ak ñetti yi ñu ne waaw fa na am mu ne nangu naa walakin ayna muridiya minkum loolu kan la ci yéen mu ne foofu awasu min kibritul axmar bàyyi gis ne sama taalibe moo gën a jafe mercure rouge moo gën a jafe mercure rouge mooy wurus woowu ñuy defaree xaalis waaw mercure rouge bàyyi gis ne sama taalibe moo ko gën a jafe mu ne in kaana al amru kama wasaftum bu fekkee yéen ni ngeen ko jàppee nii rek di ko mellale noonu la ku ne ku yor sa kurus rek am sa mbaxana rek taxaw fee na taalibe la ngeen ne taalibe la mu ne wa yuusaku an arfon isnan an kulli muqaddamin waxuma taalibe bi mais muqaddam yi sax dinaa nangu seen lijaasa yi xaw naa koo nangu mooy naa ko nangu mhm. lu tax mooy yaqtahimu bi hadratil haramaati ñoom dañu xatt hadra yu haram yi walam yuqim bi maa awjaba alayhi bu fekkee taxawuñ ci li leen war mhm. bàyyi mu ne fa wallahi maa awqafa sayru ulaayika kon képp ku nara a nekk taalibe baay mooy lan mooy koo xam ne pare na pour dem ci yàlla mhm. pour ànd ak Cheikh Ibrahim ci xaalam pare pour lan lépp lu bàyyi doon jëf mu jëf ko mooy li bàyyi doon jëf ak taalibe yi mu fexe ñu jaar ci ak moom mu dem ci pay yàlla bi dagg kiiraay waaye bu fa yeggee mu xam baqaaw bu amee baqaaw mu seede lépp yàlla ci boppam moom taalibe bi su boobaa mu dara dooroo nekk taalibe bàyyi su boobu doyel wax na feneen ne xaarif yéen koy wax xam nga taalibe bàyyi moom boo ne taalibe bàyyi ñu ne xaarif la mu ne xaarif am na xen dal xaw mi te góor yu njëkk ya amoon na xaarif ñu ne ko kal nan la daan mel mu ne man saxa fanaahu baqaahu yan fa alfaani xaarif te ñu mooy koo xam ne lim fanaaw ca lay baqaaw des ci loolu rek mu jeex mooy dara xamul lu yàlla bu amul baqaaw waa ji du am tamis ànd ak nit ñi rek loo wax mu ne yàlla la saxalut leneen waaye dàq lépp te gis nga boo dàqee lépp da ngaa dee mhm. boo saxalee lépp dangaa ngaa dund yaa ngi dégg kon faaw nga dàq waaye faaw nga saxal comme ni yàlla dee yàlla dafa wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa dafa dàq na fiyu la ilaha man fiyu la ila isbaat la allaahu mooy mawjud yàlla ba mu dàq ba mu ne laa ilaha dafa saxal allaahu moo tax ki nga xam ne dafay dund moom dafa sax gu amul jeex ki def fanaaw moom dafa jeex gu amul sax des waaye ki def fanaaw def baqaaw moo jeex des bàyyi nag daf ne aarif ci man mooy man fanniye fi zaati maratan mooy koo xam ne dafa jeex ci yàlla benn yoon yemu ca wa fi sifati maratay ni mu jeex ci melo yàlla yi ñaari yoon ci meloo yàlla wi ñaar yoon yemu ca mu ne wafil ismi maratan te lii mooy lawal laaqir zahir baatin da jeex ci yàlla benn yoon jeex ci meloo yàlla yi parce que sifataani la qadimataani hadisataani mazharuma fi dunia wal axirati ñaar yii moo tax yàlla doon sal saani isnayni ishuma fil qaar bàyyi woy ko ne salli alal isnayni ramsati kullu isnayni wa siru fi isnayni wa zaaka siru azal ñaar ñii dañ ciy jeex mooy melo yàlla bi ñaari yoon mu ne wa fil ismi maratan nga jeex ci tur bi benn yoon fa nga yem mu ne déedéet boo paree wa asbatal wujuda da ngay saxal xam gi muy yàlla fil haqaayiqi salaasa ci ñetti dëgg yi mooy jëmm yàlla ji ngay jël saxal ko ci meloom turam jëmmam waraaw ay nan nga teg ci sa bët nag nga xam fi nga saxal melo yàlla yu fan la kan la fi nga saxal tur yàlla yu fan la kan la fi nga taxa saxal jëm yàlla ji fan la kan la soo paree wa asbatal asmaa yi nga dajale leen ñoom ñetti ñooñu muy tur wi ak melo yi ak jëmbu ji saxal leen ko bil ismi ci tur wi tur woo nag beneen maqaama la bàyyi na xaqiqatul ismi xaqiqatul aqaayiqi wa maxnaahu sirul xaqiqati wa lafsuhu faatixe jamee kutubu samawiya xaqiqat dëgg-dëgg tur woowu mooy xaqiqatul xaqaayiq mooy dëgg yàlla yi ki leen di dëggal ñoom wa maxnaahu maanaam kooku sirul xaqiqati mooy mbóotu xaqiqa bi wa lafsuhu bu waxee fatiha jami kutubu samaawe day firi mboolem téere yi mu ne warada an laa xalaq aadama ala sooti wa nasala yàlla moo ko bind mu nekk doomu aadama wàccee ko mu ne ina saaniyaaka wal abtaru kooku ku ko inkaar da dog ci yàlla loolu moo tax ba xaarif ci bàyyi yombut xendal xaw moom yomb na mooy la ngay fànnaaw ca ngay jeex mu jeex waaye xaarif ci bàyyi moom dafa am tamis parce que bàyyi daf lay jaaral ci jaaro waaye nga jeex ci jeexu des ci desu waaye dooru ñëw taxaw nekk taalu bem ku ne nag sañ naa yor kurus jaar ci bedd mi buñ la laaj da nga ne taale bàyyi waaye buñ la laajee li bàyyi wax ne mooy taalubeem carte d'identité am tegaat sa kurus gi wala nga wuti ku la xamal ala kulli haalin waaw ah, loolu loolu luy mat luy mat a leeral la ndax li tax ma jékki-jékki laaj la loolu rek na xam naa dinaa am na fu may ñëw mais bala maa ñëw foofu noonu faa ma dem fee waaw bu la neexee ala kulli haalin ndax li tax ma laaj la lu tax melokaan parce que bëri na si amaana si si si si si dëkk bi mhm. sëriñ yi bëri nañ lool waaye dama nekk taaliba diw ak yomb mhm. diw sama sëriñ la dafa yomb lool. trop sax waaye est la muy dénkaane yaa ngi koy def. moo tax ma laaj la lan mooy lan mooy taalibe. te loolu moo wér sax xam nga problème bi mooy. loolu moo nekk ci àdduna bi tey. Mhm. du ma la dagg sax. mooy lan da ngay mbuboo waaji ne diw taalibeem laa fekk yaa ngi koy xor. Mhm. parce que ku dajeeg yow melo yi nga am ne di ko gis ci moom. te gis nga nit bu juree doom xam nga lu mu bëgg. bu xoolee baay bi bu ñu xoolee doom ji gis ci moom baay bi. Mhm. te gis nga baay ñes dafa selvisé. Baye Niass dafa am xam-xam Baye Niass dafa diplomatie Baye Niass dafa am culture Baye Niass maanaam bu fekkee bëgg ngaa xam Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass ubbi kase tamit di xool ak di xool tukki mi ak fi mu doon dem ak ñi mu doon toogal rek da nga xam ne Baye du cuune Baye doo nekk taalibeem di jege nit ñi ñu lay daw wala ñu lay bantu wala ngay wax ñu ci déggee leneen mhm. Baye Niass léppam xam-xam la waaye jëfam léppam njub la képp ko ànd ak moom te nekkoo ci melo wax nga ne ànd ànd nga ak moom de waaye moom dafay génn ci yow daf ne amaa man yentasibu ilaynaa képp kuy askanoo ci man wa yartakibu shay'an min muxaalifati sariati ngay toggoo dara ci li wuute sariya al mutaharati sariya bu laab bii bi ibtiaal xaramaati ngay dagg yu xaraam yi di ko def wa tarki maamuraati ngay bàyyi yuñ digle yi bàyyi nges ne fa ashadullaha maa ngi seede ci yàlla wa ashadukum maa ngi leen di seedaloo yéen ñiy gis waa ji def loolu mu wuteeg li ma doon def man ne an nii bari un minhu man génn naa ci moom ne allahuma anni bariwun ilayka ne yàlla maa ngi lay seedaloo ne kooku génn naa ci moom mu indi aaya alquran yàlla ne falyazar ladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum asabun alim mu ne yàlla yàlla dafa ci alquran ne na nga wattandeku di ànd ak koo xam ne day wute ñun mbir boo ànd ak moom naa mu indi la fitna fii ci àdduna mm-hmm. te bu ngeen demee àllaaxira mu indi la mbugalam yàlla mm-hmm. moo tax booy ànd ci faydu bi pour koo xam da mm-hmm. la jaarale ci li bàyyi wax mënoo fanaaw ba dàqa fanaaw bàyyi déedéet loo jeex-jeex bàyyi la gënoon a jeex mënoo xam maxarifa bu hëpp ko maxarifa kon lu tax ngay yokk lu mu toon walla ngay jéem a indi meloo wu mu melutoon ku selwise ko koo koo xam ne boo ko ne jàkk rek kon bëgg njër selwise bàyyi dafa mel ni yëre yi mu doon sol sax amatu ndax li ko yàlla mayoon te loolu mooy xam-xam sunu sëriñ sàng baraamu Njaay xam nga lu mu wax moom daf ne gis nga wël ñi bu njëkk da nga daan gis gaa yi daan dugg ca àll bi lekk xob dañ daan dugg ci àll bi di lekk xob. pour lan fase seen jabar yi ñu ne lu ñu uti mooy jéem a nekk sufiyanke loolu bu yàgg la woon parce que lu tax mooy dem ci yàlla bi dafa jefe woon bi bàyyi ñuy nag ba ko ne tawaytu wa sahaltu tariqa ilal xaqi leem naa yombal naa yoon wu doon ba dem ci yàlla li kulli muridin wasul xaq bil xaqi koo xam ne bëgg naa yegg ci yàlla comme leem na ko yombal ko waroo def comme ni gars yi doon def bu njëkk gars yi buñ bëggee yegg ci yàlla dañuy fase seen jabar yi tey lañ gis bàyyi ngees dalay jox course nga continuer sa liggéey mu jox la kurus nga tok sa bir keur mu jox la kurus bu la nexa sax ci bir tarbiya bi nga dem maye guru ñu war la jappal tak ngay tarbiya askaram yi raaw askaram yi boko jele askaram yi boko jele nga selal ko def lim la wax da nga yegg ci yalla netal nañ ñu benn mag moo kilifa la bi ko bàyyi tarbiya xamna bu bu foog foog mo turon sax parce que euh, dafa bu wa dama koy wuruj te jëf ju rafet la moy mm-hmm. sama kilifa moy sama mm-hmm. dafa bi ko bi mu ñëwee jébbalu ci Cheikh Ibrahim war a tarbiya fekk boobu moom kilifa gu mag la woon bàyyi jaar na ci moom mu yoroon daara ju nekk boroom xam-xam bi bàyyi waxtaanee ak moom ba mu nangu ne bàyyi ko raw bàyyi na ko fekk si ma nga gàmmu sil ma bi mu nangoo dem gàmmu sil ko biñ demee bi gàmmu gi tasee daf ne bàyyi li ngay wax ni bokkut ak li ñuy jàng ci téere yi dimbale ma ci li ngay wax nii bàyyi yeesalal ko tariqa bi jox ko tarbiya boole ko Seydi Ali Cissé nga xam ne mooy sëriñu mboolem taalibi Cheikh Ibrahima yi ba demee ci Seydi Aliou Cissé Seydi Aliou jox ko néeg bu baax ngir leetar bi ko baay bi bind woon ko ne ko kilifa la nii la mel mu del ci waat ci baay Niass na ko néeg bi ma waa ji dugal ki ma booleel Seydi Aliou néeg bi ma dugal duñ fa dugal kuy tarbiya mu ne ko dama dama jox dama xam ne man duuma sëriñ dama ñëw pour tarbiya Baye Niass na ko du ca néeg ba du ca xéwal lañ lay jox ci askar yi ma la jox la feeg yaa topp foo mënoon nekk danga ngaa gëj ci moo tax mu ne wa laazimu askar haazal yurdu islan la xomb yi tax di lil sama askar yi may joxe bis boo ko toppee baa ngeet ne ne da nga gindeeku da nga yegg ci yàlla ala kulli nga teg foofu sa loxo ndax xam naa ni moom plateau bi moom dafa spécial tey ndax Babacar moom xam naa ni moom fi mu toog xol baa ngi firigo fi mu toll nii barhaamu baaun waraun alifun thumma ha